un acteur politique. Je suis un homme politique et un philosophe. Constant. Oui, oui, oui, j'ai dit. Donc, constant bien dans ma logique. Ça hmm. ma logique, moi, lan moment mën dans la démocratie Sénégal tey ji retrouver une démocratie pluraliste ni retrouver une vie démocratique normale avec force politique y war bok il yep, yep, yep, bok. et le dernier mot revenir au oh, peuple maintenant xam nga lu tax foofu loolu am solo tey Ousmane Sonko Bokul, Karim Wade Bokul, Bougane Bokul, Kanine Bokul, dans cinq présidents, bi ñëw bu première préoccupation mooy lan mooy defaat banen dialogue parce que tôt ou tard Ousmane Sonko va revenir dans le jeu tôt ou tard Karim Wade revenir dans le jeu mais autant les maintenir maintenant dans le jeu et le peuple arbitrer conflit bi mais le dialogue doit être permanent mais aujourd'hui euh, même qui ñëwaat dafa pas de dialoguer Benen bi euh, lan la la date du 2 avril la légalité et la légitimité du président de la République il faut quand même poser dafay poser oui pertinente Macky Sall le 2 mhm. avril nous sommes gouvernés par une constitution le 2 avril, Macky Sall doit démissionner. Le président de l'Assemblée nationale entre en jeu, organiser de nouvelles élections. Consensuel, nous dépasser la crise définitivement dans une nouvelle phase politique ku sénégalais yi présidentielle le 3 ou le 10 mars il date a une date ko ci parce qu'il faut qu'on dialogue d'abord et puis choisir une autre date donc vous êtes comme le président la Macky Sall proposé la date du 15 décembre vous pouvez pas me dire que vous êtes comme le président non ndax da nga gis-gis je veux dire. non non non non comme Macky Sall Le président daf ko le 15 décembre waxuma loolu hmm. le 15 décembre. suñu amee un dialogue. vous proposez bande date vous proposez non je ne peux pas. duma technicien ministère de l'intérieur parce que li am solo moy lañ wax politique ñi ngi wax kenn ku ci ne say dat wa non man man nag amaguma am dat nak <laughs> amoon na fi ben théâtre bu ne bu ñu xëccu ay dat xawma <laughs> ku nekk ya nga wax ya nga wax wi mais bon man donc amul solo man li am solo. j'ai dit su fekkee situation bi nga xamni ne kenn xaru ko won xam nga c'est une situation inédite. Mhm. kenn xaru ko won situation bi dab nañ bu fekkee mën na nekk occasion bu mëna jour sénégalais yi toog ñu mëna waxtaan ñu mëna d'accord ci lo xamanteni dina mëna indi situation vie politique bu normal fofu on gagne du temps Quand fal un président mu ñëwaat war a gàdduwaat dossier le FC 25 d'accord, nous ñu ci. non nee nañu nañu maintenir. waaw mais euh, élection yi avant le 2 avril. ñom ñom duñu. Euh, également di ay wa société civile comme tout à l'heure mais duñ Sénégal bind nañu ben lettre adressé ko est ce que tay lolu ngeen bëgg yeen mën ngeen mën ngeen ko am aujourd'hui ce large consensus. mën na sout la constitution du Sénégal ba ngeen war a yegg ci dialoguer choisir une date bu jéggi les deux affaires comme nous avons fait tout à l'heure suis un dialogue avec les ñu wax waxtaan ku nekk rek am ce que je dis là c'est pas la bible mais il y ni des gens de bonne volonté nous nga que ni Sénégal rek leen ñor muy Nous nga wax société civile tous je pense que intelligence le patriotisme bi bonne foi yaakaar naa ni ak lu mu ci mënti doon war nañ mën a am issue boo xamante buñ ci génnee dina gën a dëgëral suñu démocratie ak ñi nga xamante ni dañ leen a xañ seen aq dañ leen a écarté du jeu politique ils sont c'est des victimes mais tey conseil constitutionnel génne na liste bu bees ginnaaw bu mu constaté euh, décision bu Rose Wardini ndax loolu prouvé wul que moom mu ngi ci logique am ni liste boobu ñu jàppoon moom moo war a dem. non y a aucun problème bu fekkee loolu la ñu war a continuer ñu continuer ci bien daal j'ai pas dit ça j'ai pas dit ça. mais amna lo meun amna lo meunul ci débat lañu toll waxtaan lañ wax débat bobu amnañ ci suñu xalaat amnañ ci suñu position ñu wax ci suñu xalaat ñu wax ci suñu position le dernier mot ne nous revient pas mais amnañu droit ñu wax luñu xalaat par rapport à ça dañu wara a dem élection mais su fekkee processus bi force politique yi wara bok wala personnalité politique yi wara bok mu permettre au peuple sénégalais mu arbitrer xam nga conflit bi fi ne sénégalais yi ñu bëri dee ci ay projet politique daal di ci mbëkkante ay leader yow waxuloo woon boobu bañ la recalé moom danga jàppoon sa njàmbur non peut-être yaa ngi woon ci les recalés mais coow li mais mais daf mel ni yéen également da ngeen a indi porox ndollu bi da ngeen cee bëgg a profité yéen aussi bañ ma bañ ma bañ ma éliminer waxuma man bañ ma éliminer le soir même j'ai j'ai j'ai waaw mais mais maanaam agitation bi mais mais agita il faut être responsable c'est pas parce que éliminer nañ le donc euh, donc y a des a qui ci prof ndollu PDS bi yéen également pour bëgg. kan mooy propre pro. mais yow ku ci mel ne yow ku ci mel le le collectif. parce que boo nee da ngaa bëgg wax nga li nga wax leer na nañu également ku ci mel je pense Mamadou Diop de Croix entre autres ñu japonais ne ñu ci bari que dañu war reprendre le processus vous avez vous profitez ci event Kibi, bi euh, li am ci contexte bi pour que ñu delluwaat ginnaaw sur le processus électoral alors que les décisions du conseil constitutionnel s'imposent à nous loolu la wax je pense que qu'on comprendra euh, donc la logique de ma pensée man traité ou PDS traité wu ma prox le PDS traité wu ma waxu ça sama wax la traité position FDS les Galawar, ñeme ko assumer par rapport à position publique j'ai dit bu fekkee dañ ne dañuy waxtaan laa la wax bu fekkee waxtaan yu mën na gën suñu démocratie man d'accord nga ni malmené nañ d'accord nous ci ni bari na lu arbitraire. oui il y a beaucoup de quoi. Il y a beaucoup d'injustices. Ce que waxtan bobu inclusif important moy que le peuple sénégalais puisse arbitrer les différents politiques yi fi nek yo xamni peuple rek moko ko arbitrer lolou suñu xalaat la n'empêche amul problème si on doit y aller sur l'autre logique jusqu'au bout mais ñi dem élection li am solo moy Macky Sall mom jeexal justement loolu la bëggoon wax bu féké dem nañu élection avant le 2 que dialogue bobu nam ñi ngi koy lam lamé ba certaines dates sax ñi ngi ko commencé euh, diko diko annoncer peut-être que dinañ ci gëna am lu ci gëna lèr mais su né lolu am tuul ñu dem élection lan moy nekk sa position euh, sama euh, position moy les candidats yi yi jàllagul les plus représentatifs ñoo nañ seet si ma à Thiès mm-hmm. muy Khalifa Ababacar Sall di Malick Gakou di président Aliou Mamadou Dia euh, di Thierno Alassane Sall euh, di délégation Bassirou Bassirou Bassirou Diomaye Diomaye Diomaye fay je pense yooyu yëpp di président Idriss Seck donc mm-hmm. ñun FDS les Guelwaar def nañ conférence nationale sur la question am amna liguey bu ñi ci santone ñu jox mandat au parti Et son mag président Macky Sall la arrêté arrêté date bi inshallah FDS les Guelwaar ñi nga xamni mengo nañu ak ñun gis-gis ci ñi japp ni mën nañu liggéey ensemble. Idrissa Seck moo ñëwal boppam Idrissa Seck moom da ngeen a séparé wu bi mu demee rejoindre Macky Sall donc est-ce que kooku mën nañu xaar Babacar Diop dem dem rejoindre la coalition de Idi. Idrissa euh, Souma Constance hmm. c'est un grand tiers, waa et mu def lu euh, parce que je suis maire je suis très bien placé xam Idrissa mais yaakaar il a fait des erreurs politiques Yo et choix politique il xamante ñu mu waroon a def. surtout dem bokk bokkul warta bokk ci say choix alors. waxuma lool de. terminé. donc man waxuma lool de donc dama ni.